إذا جاء نصر الله والفتح ولما رجع إلى المدينة أقام بها بقية ذي الحجة والمحرم وصفر الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñi ngi nuyu mbokk yi ñuy seetaan yëpp di yëkkati ay kàddu yi cant yoo xam ne dafa jóge ci kilifa yi nga xam ne ñoo teewee jataay bii di gàmmu gi tàmbale ko ci sëriñ Ahmad Bari mu Cheikh Amadou nga xam ne moo fi teewal Cheikh Amadou Mountakha jaar ko ci sëriñ Afi Boussa imam mi nga xam ne moo jiite daayira Muxadimatul Xidma ak sëriñ Abdou Lahad Boussa mii di secrétaire général bi ak membre yi daayira Muxadimatul Xidma ak daayira Rawdu Rayaahin yëpp eh, jëmale ak kàddu goo xam ne dañ koy jaarale ci suñu mbokk suñu xarit sëriñ Basiiru Mbàkke Xaadim Awa Ba mu jàll nag ci xaritam di sëriñ Moustapha Saw sëriñ Moustapha Saw nag baas bii nga xam ne ci la ñu nekk di fi dundale guddi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam at yii yëpp ba ren moo ciy def xaalis bu bëree bëree bëri ngir ñu mën a toog fii dundal fi guddi gi te taw taw du yàq jàng yi ngelaw du ko yàq loolu nag jàpp naa ne li sëriñ Ahmadou doon wax léegi ci wax ne képp koo xam ne dépassé nga ab dërëm donte ab dërëm la ci guddi yonente bi sallallahu alayhi wa mel nga rek ku teewee dar euh, participer ca xare Hunayn ni ak loola jàpp naa ne euh, tawféex ju rëy rëy la ci koo xam ne yàlla dogal na sa alal dem ci lu mel nii kon sëriñ Moustapha euh, sëriñ bi fasaale na la fasaale it sëriñ Basiiru Xaadim Awa mi nga xam ne jëf ji ci moom la jaar ñaan sunu borom yokk sab liggéey te defal la tawféex ba li nga ci yéene lépp sunu borom defal la ko ci daraja yi guddi gi Euh, kàddu yooyu la la ma kilifa yi joxoon ndigal ne naa ko jottali euh, lu mu gudd gudd ak lu mu gàtt gàtt mooy kàddu yi cant ak ñaan ñaan gi nag ñoom ñoo ko féetewoo fas nañ ko kon yàlla yàlla nangu ñaan gi ci darajay guddi gi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.